daal Youssou kooku yuuxu mbalit nduur laa ko tudd bugguma wax turam. waaw a ci mbalit la jeex. ok vas-y voilà yuuxu mbalit nduur laa ko tuddee. Mhm. te duma ci soppeeku mukk. d'accord parce que bu fekkee ne dañuy concentré wu ci samay saaga man. Mhm. ba pare concentré wuñ ci benn doomu aadama boo xamante ni dafa taxawal tele boo xamante ni ak rajo boo xamante ni bu tayee mu. ànd ak suñu borom bu subaa mu jël ay xale xam nga di leen def looloo xamante ni bokkul ak li yàlla santaane wala li yonent bi santaane kooku mooy teg nañu ci ñaari yoon ba pare ba pare ma fekkee loo xamante ni nag dama koy wax publiquement ñëpp di ko dégg yàgg naa ko wax Facebook man du ma jóg rek cible nit musoo maa dégg mu tudd la mosoo maa dégg mu tudd Papa Ndiaye mosoo maa dégg fii <laughs> amul kenn amul kenn amul def loolu man musuma jóg rek ne dinaa yàq nit comme waa ngeen tudd léegi xam nga mu yuuxu mbalit nduur <laughs> en 2007 dañu toog Boost Foundation mi ngi may dégg Bouba nduur mi ngi may dégg Mbacke Dioum mi ngi may dégg mhm. man Sénégal rek laay dund amul artist bu mës a teg diggante 2001 ba 2017 bi may ñëw fii Sénégal artist bu yàlla bind fii waxal ak ñépp nag fecckat ku ma mës a fekk New York te teraluma la wala ma yëkkati la ba nga defe ne sax yow dama la dafa am lu ma bëgg ci yow. ñëpp nag tout le monde ku ma ci dajal ku ne di nga xam ne daje nga ak Assane Diouf léegi bu fekkee ne ñoom dañu ñëw jël turu Sénégal ci ñun liggéeyu ñu liggéey aux États-Unis xam nga bu Bush Foundation Laura Bush jabaru George Bush mhm. génne ay milliards def ko ci malaria. pour dimbali sénégalais yi benn doomu aadama jël ko renouveler ko teleem def léppam ba pare ñëw ne pat xamali ma la jàpp njaaburam toog ba mu neex ko ci même moment boobu mu dajale ay waykatam ay xam nga ñi nekk ci labelam xam nga génn leen ci dëkk bi ay jeunes xam nga tilimal seen der jël alal jooju naan dafa jënd ay sànke pour dimbali population bu Sénégal li ma lay wax ni war nga ko fàttaliku. Mhm, boobu yaa ngi wal fajiri. Mhm. xam nga ne dafay dimbali population bu senegal ci suñu alal kooku sàcc la. kon yow jàpp ne xaalis boobu moom ci da ko def ci télé maanaam. tant que génnul man dama ko waxoon depuis. wax naa ko bu bu gis nga di yóbbu man ak moom nii la def depuis ñu nekkee xale. ñu nekk TFM Ndiaga Ndour ñoo juddoondoo Medina Bouba Ndour ñoo juddoondoo Medina. afiyu bu Youssou Ndour ñun ñoo ko tolloon naa foo xamante ni maanaam pour gàttal wax sama rakk bi ma tudd léegi turam maam Cheikh Diouf. sama taaw moom laa ko tuddee en 2015. bi sama taaw juddoo rek sama yaay barke Mouhamed dafa ñëw yeema ne ma sa doom ji bu ko tuddee Youssou Ndour kon xam nga kooku am na fu ma tolloon ci moom sori woon naa ci moom trop mais dafa am yoo xam ne duma ko may doomu aadama du ma ko may sax sama waajur mooy lekk alalu askan. ba pare toog ne xam nga man maay patron wu Dakar. Assane ah, accusation yi c'est grave de. sa xoolal bu subaa na dem seeti basiru Guèye. parce que détournement de fonds nga ko accusé. dama ne la xoolal Bush Foundation bu Laura Bush Mbacké Dioum buuba Ndour ñoo ànd dem Washington DC. xolal Youssou Ndour dugg ci biir Sénat bi testify ñu bind set mu ñëw El Ndaw bi nekk El Ndaw day liggéey ak mhm. moom moo yor. Euh, Euh, Dakar Séné euh, New York Times. bu États-Unis ñu toog man maa yor caméra bi mu interview Youssou Ndour ne ko hee xaalis biñ la jox xam nga nu mu toll doo ñu ko wax ak boo demee Sénégal noo ciy def. wallahi mu ne damay bàyyi ba egg senegal ba tey jii génneel ma benn image bu wane ne moom wax na ci loolu amul. mais est-ce que avant ngay commencer saaga bi nga koy ciblé avant ngay commencer saaga yi. di ko di ko di ko ko jëmale. Mhm. est-ce doxoon nga ci pour moom mu jéem a wax. ana xaalis boobu xolal man dama nekk nit koo xam ne dama daan woote bu DJ Kolos di animé Kolos maa ko boole Ndongolo <clears throat> ak Ablaye Ndiaye promoteur yóbbu ko États-Unis yaa ngi dégg dama daan wax ak Kolos di wax ak animateur Walfadjri yëpp wa boobu. Mhm. Boubs tout le monde. bi ma demee ba dugg ci loolu pour am ay question buuba du ñoo nekk buuba dañu dem ba taxaw ma ne ko weñ bu naawee dal sa kaw dal sama kaw rek New York la woon hmm. ma ne kon weñ bu naawee dal ci sa kaw dal sama kaw maag yow dinañ ko lijjante am na loo xam ne du ma ci egg comprendre xam nga ñu jël affaire yi parce que suñu xalaat ne benn taalibe sëñ Fàllu bu ñuy wax Mark Zuckerberg dina créer Facebook. Hmm. ba yow nga mën a connecté wu rek dañ defe ne woon ñoom seen tele bi day ñëw contrôler Sénégal te loolu nekkul comprendre xam nga moo tax keroog bu ma amee accès ci am caméra buy wax ci ñoom laa njëkk a wax. mais avant nga koy def demoon nga pour pour jéem a xam na la. def ma ne la soxlawu ko. parce que na génn rek ne alal ji loro buus moo ko génne pour malaria bi pour sénégalais yi la jeex na mais musu ko def. jéem la contacter benn yoon nangu ko def contacter bi mooy di ma tëggal na ma fi mbojo mbojo ñëw na fi niteel xale bi la niteel xam nga yooyu. gaarawaale yow comprendre li ma. li ma yitteel comprendre nga bi bi affaire yi safee sàpp 2017. ah même même même mois ñaareelu weer ba ci lañ ne ma xoolal sama nit ku ko jege di ko liggéeyal moo ma woo. 4 heures du matin ne ma. sa waay vidéo bi nga ko defal li nga ko li nga wax ci moom kii na ko de. seetaan na ko de xam nga mu ne ma dina dina loolu tontu de. Mhm. ma toog di xaar mu ñëw ni teel xale bi leen ni teel yow man li ma yitteel mooy gën ni teel xale bi parce que faale wu ma leen. Ah. xam nga li ma la wax ah, mu ñëwaat indi mbojo mbojo faale ma ko. mu ñëw génn réseaux sociaux faale ko mu toog fii di live Facebook ma génn wax jaar fa ma daan jaar mu ñëw naan xam nga jóge ci kalandoo ne xam nga Facebook bi fi mu toll nii ay Ferrari la ma ne ko ok yaa ngi ñëw. di nga jébbul mhm. te yàgg yàgg il faut mu génn wax sa man bañu ma cee tëdd kaso mhm. parce que Sénégal ak dëgg mhm. jaral na ma teg sama bakkan bi camp ba keroog dëgg gi feeñ major ci lancé boobu nga nekk ah waaw mooy euh, affaire Youssou Ndour bi lañ koy rappelé uh-huh. xam nga aide bu dee aide officielle boo xam ne nit ki dafa nekk dans l' obligation ko kooku ki koy def da koy def état wala institution bu lié à l' mooy ONG wala mu nekk état du Sénégal. mais xam nga aussi nit bu demee ci benn réew par exemple benn waaye na ko je te pour quelque chose xam nga loolu pratiquement day nekk loo xam day informel. ok comme un don personnel. xam nga loolu mooy problème bi comme yi ñuy wax ni des fois mooy indi conflit yi entre nit ñu xamante que da ngaa demoon fenn daal ne président da ngaa bëgg a dimbale waa Mbàkke xam nga kooku ça n'engage que toi président jox la par exemple cent millions kooku bu demee mënoo ko traduire fenn ndax binduñu ko ci kayit du ONG yi ñu bind. xam nga loolu mooy problème mu africain yëpp. daanaka mais sa conscience mais sa conscience may ba rek ma eggale après nga expliqué ba. mais sa conscience. non sa conscience lay évoqué moo tax day xam ne pratiquement yow mi informé rek yow lay naqari yow lay. xam ni mu ko xamee quoi parce que il est dans le milieu il a des informations. qui échappent à tout le monde. mais loolu ku nekk li olof naan yàlla rek a xam la. xam nga yow tey nii sa waaye boo de boo demoon sax sa bureau patron bi rek ne ko sama dëkk ba dama faa bëgg a def nangam nangam mu jox la. waaw xam nga Pape Ndiaye mi ko fekkee rek moo naan Biteye était malhonnête. su fekkee defu waaw Pape Ndiaye boo ko deful. Mhm. Pape rek ko koy xam. donc xam nga du nekk lu ñuy mën a prendre en compte euh, sur le plan officiel quoi li nga may nit en informel wala nga jox ko nit en informel booy comme artiste yi bari naa lañ koy def xam nga ONG loolu tax ñu indi leen problème temps yi gisoo les les ONG là on a commencé maintenant c'est très difficile pour ñu nga am ONG d'abord parce que mais major major attends major boo laa expliqué xaar major dama lay poser question bi nga ko nekk koo xam ne exemple la par exemple comme man tey mënu ma nekk ci télé bi di wax di wax lu baax di joxe ay leçons de morale ma dem ci bureau Cheikh Niass ne ko Ndofane kat vraiment am nañ problème mu ndox mu yëkkati ay millions jox ma dema demal di jënd ko ma jël yooyu damm ko sama poos ci ko est-ce que question de morale la moom laa moom laa seen di expliqué dama ne fayee ko sa facture kër yow voilà moom laa seen di expliqué ma ne <laughs> uh-huh. question de morale la c'est endogène comme ni ko Assane xamee xam nga Assane moo am accès à cette information mais xam nga Sénégal boo ko waxoon fii tey mënul am preuve. ci yoon du arnaque. ah du arnaque ci yoon. non doo koy mën a yóbbu fenn pénal ki ko jox même ki ko jox major du ko mën a yóbbu sur le plan pénal non boo ma laaj loolu ma ñëw ci major non je ensemble mais la morale la morale n'accepte pas nga dem joxe turu mais bii nekkul woon ne moom dafa nekk benn Assane Diouf du ONG du dara du affaire ONG. moom leader Pape Ndiaye c'est important ñu ñu leader d'opinion ñu leeral l'aspect juridique. ci ci loolu tuuti rek. leader d'opinion la ci biir biir dem ci àdduna bi voilà foo dem ci àdduna bi. foo dem ci àdduna bi boo nee Youssou Ndour drapeau Sénégal la fa yóbbu. yaa ngi dégg li ma la léegi ci loolu ci lañ ko fale ambassadeur. pour mu représenter Sénégal ci affaire malaria bi kooku Sénégal la fa demal. Mm. mbubbu Sénégal la sol tànku Sénégal la demee làmmiñu Sénégal comprendre nga bu ñu jëlee alal jox ko Sénégal bu mu nee cëpp aéroport dafa war a taxaw ne sénégalais yi dem naa ci seen tour mi ngi nii. mais defu ko. ah ambassadeur Malaria defu ko. tu les choses. comprendre nga <laughs> jël xaalis bi. sama kanam. man sama kanam biir États-Unis ay rakkam jël alal ji def ci liñ ciy def may teg sama bët xoolal ñu génnewaat seen logo wu télé defaraat. kon da nga bëgg Sénégalais yi taxaw porte plainte bu xaalis boobu ñëwaat loolu nga bëgg. non non soxlawul Sénégalais yi di porte plainte. Hmm. soxlawu ko de. parce que Ibrahima mi ngi wax léegi. dañu am dañu am dañu am président de la république bu Sénégal boo xamante ni moom la ñu dénk suñu lépp yee moom laay ñaan mu lijjanti loolu parce que sa xam na ko xam na ko ah wallahi mag sàll xam na ko xam na ko de parce que bi loolu di am moom moo nekkoon premier ministre bu Sénégal xam na fi muy jaar ñoom parce que Macky ñi ko wër ñëpp ku ci nekk dafa am foo xamante ni non defal na ñi ko wër ñëpp yee boo alaa nekkoon président comprends nga li ma la Macky Sall moo nekkoon premier ministre mhm. comprends nga li ma la bu loolu jàllee beneen boo xamante ni moo gën a garaaw xam nga ñun dañu manipule dañu sànq ba nga xamante ni am na yoo xamante ni même bu ko Pape Ndiaye mii xamee sax am na foo xam ne bu fa tolloo du ko wax parce que danaan bu ma ko waxee lii mën na ma cee fekk man loolu sama yoon nekku ci parce que man Sénégal moom ma ñor fulla ji nekkoon ci maam borom Touba xoolal ba mu ànd ak tubaab yi ñu naan bàyyi leen ko rek ñu xool ndax dina ñibbisi ah man fulla jooju laay topp lépp nekkul ci man mais moom laay xool moom laay roy parce que moom laay waate. moom laay yaakaar léegi ba pare ci Youssou Ndour ñëw ci Moustapha Niass. moom nga ko du ma demagum ci Moustapha Niass. waaw doy na nag pour Youssou nag yow tamit. non du fa demagum yamale foofu nag. du fa demagum parce que day leer. est-ce que c'est pas personnel yaa famille. non non non parce que affaire nekku fi pour mën a indi tonton affaire. waaw moo tax ñu bëgg rek ñu ne comme ni ngeen koy defee nii. bëgg effacer affaire yi. jàll ci leneen xam nga di accuser ku mënul tontu tam dafa yomb. non non te fi nga toog benn preuve. ku yor ah, télé yor layu xoolal. tey tele yëpp li ngeen di wax yëpp maa ngi toog fii di xool sama Facebook. Facebook bi Walfadjri moo ci numéro un. ci ñiy seetaan ñëpp ko tàmbalee ba léegi ñun. comprendre nga li ma la wax moo ci numéro un yaa ngi dégg parce que lu tax tele askan bi la dañuy bàyyi xel man Assane Diouf la maa féetale sama bopp askan bi ak lépp lu ñu ma mënti def moo tax ñuy bàyyi xel. dafa am foo xam ne bu ñu fa eggee dañuy wax lépp mu leer mhm. comprendre nga bu ñu ko def affaire comme ni ko sama frère Dame Mbodj di di waxee. xam nga voilà parce que dañuy doon dàq ak temps bi te comme yow ni nga tudd nga fi Youssou Ndour. waaw tudd Moustapha Niass tudd Amina Ba tudd keneen ak keneen. ñooñu ñëpp dañu bëgg nga taxaw si ñoom wax ñu lan moo. Moustapha Niass mais boo ko naree yem ak ci Youssou Ndour temps bi dina yem te doo ñëw ci ñeneen question de temps la quoi en fait. kon dinañ dinaa la nangu loolu Pape. <laughs> bu ëllëgee nañu nañu am temps bu bëri. nañ ko yaatal Moustapha Niass. damaa judd fekk ko fi. gis nga tey boo demee États-Unis am nañu cinq présidents yoo xamante ni ñoom ñëpp kenn nekkatu ci président mais ku ci nekk xoolal am nga foo xamante ni boo fa toogee ah cër bi ñu la war a jox dañ la ko jox mais gérer woo dara